jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM quatre vingt point cinq ñu leen di nuyu yéen sunu mbokk euh, auditeurs yi ak sunu mbokk euh, auditrices yi ak yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci euh, sunu mbokk internautes yi di ñu déglu ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi dellu am mbégte dellu si ci seen émission pencum réew mi muy am samdi bu jot bu quinze heures jotee jàpp seize heures maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi Mamadou Diaw jàll ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Fatou Gueye Fatou Gueye bokk ci. taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall euh, di militer ci département bu euh, Pikine mu nekk tamit euh, député mu nekk sixième présidente ci assemblée nationale honorable député am na ñu mbégte invité la ci rajo Rewmi FM. asalaamaaleykum Abdou Khadre maa ngi lay nuyu. Ah, di kontaan ci kontaan ci invitation bi ah, di nuyu ñu waa rajo bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar. naka Pikine. Pikine ñu nga fa rek. ñu ngi si ah. jàmm. <laughs> yéen a ngi eh, a ngi yëngu foofu. waa ñu ngi yëngu foofu bu baax a baax a baax a baax. mais est-ce est-ce que taxawu Sénégal est-ce que taxawu Sénégal. Eh, am na pikin réellement Fatou Gueye. waa taxawu Sénégal am na Pikine réellement bu baax a baax. wala fépp la am. fépp la am fépp la am rawatina Pikine Pikine douze commune yëpp. Ah. macha allah ñu ngi liggéey parce que dafa am fu ñu jógee. d'accord dafa am fu ñu jóge d'accord dina ñëw xam naa ne ci sa Pikine <laughs> euh, sa ak sa base politique léegi euh, Fatou Gueye euh, dañu jàll ci 8 mars 8 mars mu nekk bis boo xam ne dañ leen ko jagleel yéen jigéen ñi mais ñu gis ne yéen yéen a ngi xeex saa su nekk pour fi nga xam ne fi la ñuy jëlee ay dogal ngeen bëgg fa ay ay ay ay poste beneen bi aussi ci Sénégal dañu gis ne jigéen ñi dañuy yëngatu lu bari ci wàllum politique mais li ñu leen di faral di jox ci ndomba tànk dafay néew boo demoon tey ci euh, gouvernement bi jigéen ñi dafay néew yenn direction yi baree bari ay jigéen jiitewuñu ko yow ban gis-gis nga am si cër bi nga xam ne tey euh, moom la ñu war a jox jigéen ci senegal waa Abdou Khadir question boobu dinaa si sawar a tontu parce que jigéen laa euh, yaay la lépp laa daal. wante question boobu nga tontu des na wax wax nga dëgg foofu des na parce que xeex bi euh, euh, lu waral 8 mars moom moo nekk talaatay ndeer parce que le 7 mars lañ am mu nekkoon jigéenu waalo yu jàmbaare ñu ñu nekkoon ci réew mi di xeex ba indi 7 mars bi moom moo nekk 8 mars bi ñuy féete xeexum jigéen ñi waa des na si service yeeg euh, yenn poste yi di xeex bi des na des na bu baax a baax a baax mais mi ngi ñu ngi avancé ñu ngi ñëw ndànk ah, ndànk waaw waaw li talaatay ndeer yi doon bañ moom lañuy bañ ba tey jigéen ñaa ngi bañ di wane seen bopp di imposer wu de li des rek moo nekk ni solidarité bi jigéen waaw solidarité solidarité am na mais des na parce que am na foo xamante ne buñ fa tolloo pour noot jigéen rek wala pour métital jigéen ñun ñëpp dañoo war a génne suñu casquette parti jël xeex boobu booloo ko xeex ko ba ba loolu jigéen boobu bëgg am moo am. waaw mais Fatou Gueye gis nañ ne yéen ci parti politique yi yéen yéen a ci gën a sonn yéen jigéen ñi mais euh, yenn post yi yéen du ngeen ko faral di euh, occuper yéen dafa mel ni daal euh, da ngeen di toppee rek. non non toppewuñu sax de toppewuñu parce que tey ji boo gisee man mii tey ma egsi fi ma egsi du question toppe da ngay dañoo dama imposer sama bopp ci biiri góor di mm-hmm. imposer sama bopp si biiri góor si biiri góor ba yàlla def li ma am tey ji ma am ko ci côté jigéen ñi non néew ma fa am na sama yeneen morom jigéen ñaa ngi xeex de jigéen ñaa ngi xeex xanaa yëf yi kañ dafa yéex rek mais jigéen ñaa ngi xeex ñu ngi bañ parce que tey ji boo gisee gouvernement bi lu bu njëkk ba loolu amul woon li am léegi nii hmm. boo boo defee sondage bi jigéen ñi nekk si yenn entreprise yi ministre yi député yi dangay xool léegi liste yi par force parité war a liste du jàll kon boo xeex baa ngi avancé mais mais yéen si wàllum gestion mairie ou euh, gestion ci entreprise est-ce que jàpp nga ne jigéen ñi am nañ dayoo euh, pour jiite ko est-ce que tamit ci yorin wi jàpp nga ne góor ñi wala jigéen ñi ñan ñoo gën a euh, am transparence yorin wu sell. ah ñi si gën a am jigéen. ah yow tamit ñu jigéen ñi man kañ duma faral benn góor ñun jigéen ñi ñun jigéen ci societé ñu ñoo ñun euh, engagement bi ñuy am ak détermination bi ñuy am te bu ñu téyee duñu bàyyi. Mhm. kon boog jigéen macha allah. ay ah, yéen daal jàpp ngee mais lu jëm ci wàllum euh, présidence. tey gis nañ ne jigéen ñi bu ñu demee élection présidentielle sax presque kenn du leen voté lan nga jàpp ne moo war loolu te Sénégal nekk société boo xam ne mën nañu wax ne jigéen ñi ñoo fi ëpp. ñoo fi ëpp waaw loolu moom dëgg la parce que wax naa ko sànq si samay biir wax solidarité bi moom moo des solidarité bi des na tuuti parce que bu ñu amee candidat bu jigéen ah bu fekkee ne teel na ko euh, liggéey ay moromu jigéenam war nañ ko mën a soutenir si suñ Euh, jërëjëf euh, Fatou Gueye yow nga bokk ci euh, taxawu Sénégal bu xalifa Ababacar Sall fan yi ñu génn xalifa doon na def ay ay tournée ban bilan wala ban évaluation nga mën a def ci tournée yooyu. waa tournée yi ñun participer nañ ci mën nañ ci wax tuuti liñ ci gis moom moo nekk ni am si avancement ak satisfaction parce que. yu bëri ñu bëri yeewaat nañ mooy si fi ñuy bokk fi ñu bokkoon muy parti socialiste muy socialiste yi mm. tamit jóg nañ ah ñoom ñëpp jóg nañ ah simp ah, ànd ak Khalifa Ababacar Sall parce que dañoo cheminer ndoo ensemble ah ah moom si euh, temps parti socialiste mais direction centrale non non de direction centrale man waxuma direction centrale bi mais militant yi ah. militant yi ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñoom ñooy yor parti militant yi ñoom ñooy yor parti parce que ñoom ñooy voté ñoom ñoo yor yi. kon da nga jàpp ne socialiste yëpp ñoo ngi si ginnaaw Khalifa taxawu maanaam parti socialiste da jàpp ne fii nii aw tour la. ma ne parti socialiste base bi ñi nekk si base bi Khalifa moo nekk seen xol boo boo ci ubbee rek moom moo ci nekk parce que yow boo xoolee vidéo yi ak euh, li ñuy lancé yëpp si site internet bi si tournée bi rek boo gisee ñu ci bëri ay socialiste lañ. Mm-hmm. mais mais tournée yooyu noonu euh, lan moo ko tax a jóg. tournée yi dañoo dem nemmeeku ji waxtaan. ak suñuy militants ak suñuy ba ak suñu waa base waxtaan ak ñoom nee ko parce que Khalifa ba mu jógee prison ba tey euh, duggul ci àll bi mi ngi woon euh, Dakar mi ngi lijjanti yenn. Euh, Euh, situation yi mi ngi ci coalition bi doon régler ak yooyu yëpp c'est normal la ñu eggale lañ daan def avant boobu duggagul woon prison mais mais mais tournée yooyu lan mooy nekk njariñ li ci xalifa Sall moo xam ne élection yi léegi tey mu eggsi te amnistie bi ñu doon wax kenn amnistie wul Khalifa Sall Khalifa Sall li ko euh, politique moom moo ko téye woon bee passé politique moo koy bàyyiwaat comment politique nu ngeen koy defee. politique ñu ngi ci ñu ngi si terrain bi. politique rek démonstration de force da ngeen ni masla négocier ak Macky wala. Ah, amul lu ñu fiy négocier négocier ñu mosuñoo négocier ba dugg prison kon bu doo dugg prison tëdd ay at yi nga at génn di négocier ñun négocier wuñ. mais est-ce que man nga yéen mais soxla ngeen ku leen amnistier. non ñun négocier wuñ xalifa lu ko téye woon moom mooy politique politique moo koy bàyyi. ñoom ñoom dañoo politique woon ba téye ko dinañ politique ba bàyyi ko. bàyyi xalifa mais ah. est que am nga yaakaar réellement que ne dina bokk ci. xalifa euh, la. candidat la non mais la la candidature yomb na. ma ne xalifa candidat la te dañuy dem dañuy gagné incha allah. fañ fi ñu ko war a teg rek. fi ñu ko war a teg lañ ko teg. mais est que mais no mais Khalifa Sall est-ce que tamit euh, poids politique gu Khalifa Sall euh, yemul dakaar comme li ñu doon wax Idriss Seck euh, doon wax Macky vision jam ñaajo la mais Khalifa tey poids politique am ce que yemul Dakar. poids politique am yemul Dakar de Khalifa Sall déggoo li ma la Khalifa Sall daa am fu mu bokkoon muy parti socialiste la bokkoon. yor base bi xam xam yor vie politique yoroon vie politique parti socialiste installé communes yu bëri renouvellement yu bëri. Mhm. ba pare génération bi ñoom ñëpp. ñu mhm. ngi ci. Mhm. kon boog yow boo gisee tournée yi rek war nga xam ne xalifa yemul Dakar. mais mais est-ce que nit ñi am nañu yaakaar aussi. Ah, bu rëy fi ñu jaar yëpp am nañ yaakaar bu rëy incha allah. mais mais euh, yéen a ngi xaar ku leen am ne seewaay yéen a ngi koy xaar wala xaaru leen. ñun xaaruñu bu ñu bu ñu xaaroon dañuy dem toog nee rek di xaar mais ñu ngi si terrain bi di liggéey. ñu xaaruñu administré parce que Khalifa Sall euh, li ko li ko téye woon réew mi xam nañ ko ñëpp xam nañ ko kon boog loolu loolu moo koy bàyyi rek waaw léegi d'accord léegi soxna euh, Fatou Gueye uh-huh. yow nga nekk euh, député sixième vice-présidente assemblée nationale uh-huh. nga bokk ci taxawu Sénégal xalifa Sall gis nañ ko muy woo ah, ak yeeyu askan wi nga bokk ci groupe parlementaire yeeyu askan wi mais Khalifa Sall uh-huh. Euh, gis nañ muy woo euh, socialiste yi mm-hmm. est-ce que dafa jàpp ne moom munta dem sans sans socialiste yi sans socialiste yi comme sans parti socialiste non non gisul loolu moom mën na dem parce que dem nañ fi ñaari yoon élection foog naa ne mu dem ak taxawu Sénégal c'est que dafa dafa gis ni ñoom euh, ñu ngi toog ba pare ñeen dafa bëri ay frustré moom moo tax si biir parti socialiste moo tax dafa leen lu wax lu waral loolu est-ce que loolu lu tax nga wax loolu. waaw parce que am na ñoo xam dañoo gelé seen activité toog xam nga owuñu leen déggatuñu mi léegi na moom. en tant que socialiste fi mu bokk moom daf leen a leen ñëw leen man candidat la seen doom la candidat la kon boog ñëw leen daf daf daf leen oo parce que xam na situation bi. yéen yéen ñii yéen nekk si presse yéen ñii yéen tamit xam ngeen situation parti socialiste. ban situation ah si seen base. ci seen base dañoo déclaré candidat mais xalifa candidat la kon boo am na sañ-sañ ah ah ñim ko sikkal oo leen na leen ñëw leen man seen doom man candidat la ñëw leen soutenir ma. waaw mais mais parti socialiste dañoo bokk ci coalition. mais parti socialiste déclaré wuñu fenn ni seen candidat nii wala na. non ñoom mais dañoo. bokk ci waaw même même fu ñu bokk ñoom déggu leen ñu ñu wax seen candidat. mais mais ñoom mais ñoom suñu bokk yaakaar dina am candidat. ma ne ñun ay déglu ma ñun socialiste lañ te ànd ñoox ñoom. ànd leen nag. ànd ñoox ñoom. benno non non non non yéen. àndu leen ak euh, nekkul yéen da taxawal seen kuréel taxaw Sénégal. parti socialiste. bokk ci ñun ñun ñu ne ñu nekkee si biir parti socialiste ba taxawal suñu bopp. waaw génn taxawal am na ñoo xam te ñu ngi toog tëdd nelaw. te biir socialiste toog toog gele seen activité ci biir parti socialiste waaw gele seen i activité ñooñu ñëpp dañ leen di o am dañ leen di o mais mais léegi yéen non euh, Fatou Gueye yéen mm-hmm. frustré yi ngeen di woo wala wala direction centrale parti socialiste bu mag bi Aminata Mbengue Ndiaye nekk secrétaire général bi Aminata sax oo nañ ko Aminata Mbengue Ndiaye bàjjan ñëwal ñëw ñëwal uy si ñëwal jàppale sa càmmiñ xalifa Ababacar Sall mm-hmm. yéen boobu man maa ko wax. d' accord léegi yéen euh, parti socialiste tey dem jàppale ji président Macky Sall ci biir coalition benn bokk yaakaar ak ñëwoon jàppale leen da nga jàpp ëpp solo. waaw moom moo ëpp solo. parce que libéraux yi ñoo ñoom ñu ngi lii ñu ngi ñu ngi xool ñoom lu ñuy dajaloowee kon boog ñoom nañ ñëw jàppale xalifa ah libéraux yi. ah ñoom ñu ngi rey ñoom ñoom si li ma dégg si presse bi di di lire di suivre. Ah. ñoom ñu ngi jéem a xool nu ñuy booloowee. waaw xam ñoom nañu ñëw. nañu ñëw Khalifa candidat la nañu ñëw soutenir que ñoom sa ñoom ñoom Badiane Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp oo naa leen. dama leen mais est-ce que appel bi xalifa def pour woo socialiste yi ñu ñëw jàppale ko. Mhm. est-ce que gisagun déggagun nga ci ay réaction yoo xam ne réaction ñu lànk ci euh, parti socialiste. ah man de déggaguma ko déggaguma ko mais gis naa tamit ñu ñu ñëw. parce que ah tournée yi waaw tournée yi am na ñu ñëw. ñu ñëw génn ñëw soutenir ñëw génn carrément wane ni ñoom xalifa lañ ànda si biir mm-hmm. taxaw Sénégal wa mais xalifa est-ce que tournée yi muy def nii mm-hmm. euh, amul yaakaar ne man nañ ko amnistier mm-hmm. buñ ko amnistier euh, politique dafa doy waar Ousmane Sonko mën nañ ko condamné mu bañ di bokk ci élection yi est-ce que xalaatul cas de boobu tey bu présenté woon tey Sonko man koo euh, mën koo jàppale bu dee ñi ànd ak Sonko danañ nangu élection sans seen candidat. Euh. waaw xalifa laa wax est-ce que euh, buñ ko amnistie Sonko demul ci élection est-ce que du avantage am aussi. non amul wala yéen calcul boobu ñëpp ñëppay dem. ñëppay dem parce que foog naa ni Macky Sall association réew mi fu mu toll nii. amul pour téye kenn amul pour tànn kenn kuy dem ñoom ñëppay dem élection comme ni ñu ko defee ci charte yeewi askan wi période bi période bu candidature la. dañu mhm. dañ ko waxoon ci charte bi ñu ne. Euh, bu élection présidentielle jotee dinañ multiplier suñuy candidat ko bëgg a nekk candidat rek da ngay nekk candidat mhm. foog naa ni loolu ku ci nekk yaa ngi koy respecté yaa ngi koy dox euh, kiy bokk ak ku dul bokk du Macky moom moo koy choisir population bi ñu ñu bëgg def seen choix na mag président Macky Sall bàyyi leen ñëpp déposé ku war a déposé déposé ku wa ku yàlla ne moom mooy jël nguur gi rek dina ko jël incha allah. léegi yéen euh, yéen waa Yewwi gis naa Khalifa Sall ma ngi artu président Macky Sall ci lu jëm ci wàllum élection présidentielle de 2024 pour mu bañ a éliminer ay candidats mm-hmm. euh, yéen. xeex boobu euh, nan ngeen ko bëgg a xeexee ndax même bu dul président Macky Sall moom mooy tànn kan mooy nekk candidat yéen chaque jour da ngeen wax ne Macky moo jël justice bi di ko doxalee nu ko neex ban ban xeex ngeen fas yéenee xeex pour imposer ba ñi war a nekk candidat yëpp nekk candidat. Macky Sall du moom moo war a tànn. du moom war a tànn c'est moom moo war a tànn. yéen da ngeen koy tuumaal ne mooy tànn. non waaw parce que bi passé dafa amoon euh, euh, ba bun Abdoulaye Dione naan kat. ay quatre ak ay trois waaw ay quatre candidats ak di joxe ay résultats mhm. euh, fii fii la ñu fekk kon boog ñun loolu la ñuy bañ du Macky Sall mooy tànn Mak Mak du Macky Sall président Macky Sall moom mooy euh, askan wi. Mhm. askan wi ñoom ñoo tànn ñoom ñooy tànn ku leen neex kon ba ku mu neex war nga mën a nekk candidat Macky Sall jàmm ci réew mi jàmm si si askan wi moo nekk ni mu bàyyi candidat yi ñu déposé. Mhm. bu ñu déposé takkuwaay moom moom ba mu ca tolloo woon kenn téyewu ko. moom Macky moom Macky Sall ba mu waree nekk candidat kenn téyewu ko ba ñuy def fii manifestation yi place de l'Obélisque ñëpp di génn moom mu bokk mat laa matlaawam boobu di wër si si dëkk bi di wër pour nekk candidat kenn téyewu ko woon boobu kon bokk man dama koy ñaan en tant que jeune en tant que femme na bàyyi. ñi war a nekk candidat nekk candidat amul choix warul def choix bi population ñoom ñooy def choix bi électorat bi ñoom ñooy def seen choix moom na bàyyi képp koo xamante ne war na bokk bu mu téye kenn na ñëpp bokk ku ko mën moom moom moom moom bokkul wax dëgg yàlla moom ah, moom ne ñoom nee nañ ñoom ñoom moom moom moom moom bokkul te xam naa ni sax man ni ma ni ma gisee moom noonu Macky Sall du bokk parce que bëgg na jàmm Sénégal du bokk Ah, euh, li nga wax ni est-ce que du wax pour euh, pour naxtaan Macky Sall ndax ñi ko gën a jege. ay Mansour fay ak ay ministre yor ndomba tànk ak ay menet euh, ay Tall Sall. femme comme yow ñoom ñoo taxaw ne juridiquement parlant. Macky Sall am na sañ-sañ. sampaat sampaat ndëndam. aussi am na ñenn si ñoom ku si mel ni maître Nafissatou Cissé mhm. nee na yéen opposition bi da ngeen xam ne bu ngeen demee élection ak Macky daf leen di gagné gagné boo xam ne gagné bu leer la loolu moo tax mhm. ngeen di tëb di dal bañ Macky présenté wu. non mënuñoo tëb di dal parce que jàll nañ ay élection nañ ay de jàll ñu leen di duma di dumawaat ñoom moom moom moom moom Nafissatou moom. yan élection. dégg nga élection locale yi jàll na élection euh, député yi législative yi tamit jàll na gis nañ électorat bi xam nañu population bi ak opposition bi lañu àndal. kon boog moom mag ñoom ñoom seen xalaat la ñu wax ak lu nekk ci seen xel moom la ñu wax mais Macky Sall ba tey waxagul de. mais yow est-ce que njortu nga ne Macky dina présenté wu wala du présenté wu. ah man man déedéet ñu man man dëgg gawuma ne dina présenté wu ak situation bi. mais est-ce woon Sénégalais dañuy toog seen kër ba dimanche jot rek ñu dem voté ji. ah bu présenté pour pour la. mu ne woon tey damay waaw ndax dañu gis ne. ça population bi da nga gis population bi ñoom ñooy tontul seen bopp parce que population bi mature nañ mature boo xamante ne mature nañ mature boo xamante ne ñoom. loolu sax xalaatuñ ko parce que boo defee sondage sondage dañ population bi dañ naan la ah non loolu xalaat Macky xalaatu ko sax Macky xalaatu ko sax nekk ah, candidat mais yéen nee ngeen da ngeen a a dem déposé ji conseil constitutionnel moom mooy décidé léegi est-ce que du ngeen bàyyi Macky sal dem déposé moom tam jaaykatu caaf bi dem déposé mécanicien bi déposé euh, politicien bi dem déposé ñu bàyyee nag dossier yooyu yëpp ak conseil constitutionnel muy tànn di xool di càmbar kan moo war a bokk ak kan moo warta bokk. waaw loolu noonu makki Sall si boppam dafa war a bàyyi ñi war a déposé déposé ba pare. waaw nooy ah, ñi war a. war a déposé na leen bàyyi ñu déposé. Uh-huh. noonu la yéen da dem ne rek ngeen déposé. non déedéet moom na bàyyi ñi war a déposé déposé mu bañ a téye kenn moom moom en tant que président. kon yow da nga jàpp ne Macky moo nekk conseil constitutionnel. ah waaw ñëpp ñëpp gis nañ ko de moom moo fa nekk. moo fa nekk. ah waaw moom ndegam moom mooy wax kii bokk ak ku bokk kon kon bokk moom moom ci boppam man waxuma conséquence na moom moom moom ci boppam na bàyyi ñu war a bokk bokk. d'accord léegi euh, Fatou Gueye euh, ñu wax ci tension politique bi ñuy wax nii mhm. am na ñoo xam ne nee nañu euh, dialogue mënut a ñàkk yow ndax gis-gis boobu nga am. waa dëkk dëkk boo gis um foog mu am dialogue lu gis rek um foog mu am dialogue man dàquma dialogue mais dialogue leen arrangé. mais ñu teg ko ci dëgg. dialogue moo leen arrangé yéen pour ñu am des leen. non non non non dialogue arrangé wu ñu ñu astaf astafurlah. dialogue jaloog si côté bi nga ko waxee. Hmm. pour tension dëkk bi nga ma wax. waaw da nga ne tension dëkk bi. tension politique dëkk bi waaw dëkk bi nga ma wax. si foofu laa lay tontoo fekkee ni dañoo war a wax toog waxtaan jàmm am moom muy président mu njëkkee ko. Hmm. mu njëkkee ko moom moo nekk ni mu bàyyi noot bi. noot bu ñuy noot mu bàyyi ko dëkk bi dëkk bi waxtaan ab apaisé ba élection am ku wax ñu tëj ku wax ñu jàpp loolu nañ ko bàyyi ñu bàyyi ku si nekk librement wax exprimé wu si ni mu gisee si dëkk bi doxee leen dëkk bi loolu mooy dialogue ñu bàyyi ku wax mais réponse nga tontu nit ki ñu avancé de. mais est-ce que tamit euh, keroog ministre de la justice moom nee na képp ku def trouble à l'ordre euh, yoon daf lay teg loxo est-ce que du euh, militant yi Askan Wi ñoom ñooy wax lu waxuwul wala ñoom ñooy def lu deful ab laaj la. waaw li li tax nga taamu si militant Yewwi Askan Wi. mooy yéen a si kaso bi yéen kaso bi yéen yéen a ko fees. <laughs> non loolu. non kaso bi boo fa demee da fay fekk ay militants Pastef yu baree baree bare ay militants yeeyu askan wi yu baree baree bare ay activistes yoo xam ne dañu jàpp ne dañu favorable ak yeeyu askan wi wala ay journalistes yoo xam ne sax dañu leen xooqatal jàpp ne dañu favorable ak euh, ak opposition bi euh, ministre bi nag daf ne képp ko def trouble à l'ordre public danañu la jàpp euh, ñooñu ñu jàpp dañoo toog gis ñi dëkk bi di doxee ñuy joxe seen xalaat di wax seen xalaat pour man waruñu leen mun a jàpp di leen tëj ci kaso bi parce que ku ci nekk si dëkk bi nga nekk di participer si dëkk bi kon boog war nga mën a wax sa xalaat wax sa gis-gis ñu bàyyi jàpp bi parce que tolluwuñu foofu parce que jàpp jàpp bi jàpp di jàpp di jàpp mais dafay dem ba révolte loo xamante ne jaru ko waa ah bon parce que nit ki dina mer famem dina mer tey dangay xool ñi ñu jàpp ñëpp ku nekk sa famille mi mi ñu ngi wax ah mer ah haine loolu wam président waru ko cultiver si biir xolu sénégalais yi. la nga jàpp ne moo war a jàpp gi. mais ku si nekk ñoom ba ñoom eh, yaa ngi wax sànq ñoom. ñoom am na ñuy saaga si seen biir am na ñuy xas sa opposition di xas opposition est-ce que jàpp nañ leen jàpp ñu leen dañ leen a bàyyi ñuy wax lu leen neex Ah, waaw kon boog làkk doom door doom loolu loolu lañ koy waxee foog na làkk doom door doom kon boog loolu dafa amul bu fekkee ni ñëpp kii daa def fët sa doom def fët boole leen ñoom ñaañu mais munoo bàyyi sa doom di saaga di xas nit yow nga ne déedéet da ngay jàpp kii parce que li mu wax li mu wax ñi ñu jàpp ñëpp dañuy xeexal askan wi mhm. dañuy xeexal askan wi dañuy waxal askan wi parce que dëkk bi dafa métti da ngay injustice bi dafa bëri moo tax ñoo ñooñu di wax kon boog waruñu leen a jàpp dañ leen a war a déglu au contraire dafa war a dafa dafa war a déglu ñiy wax parce que ñiy wax intérêt la ñuy wax parce que lu doxul dañ koy dénoncer. Mm-hmm. lu doxul injustice bi lépp dañ koy dénoncer kon boog dafa war a jël si kàddu yooyu pour pour xool nam si mu déglu si mu am lu mu ko apporter mais nekkul ko wax rek mu tëj ko parce que tey jii nit ki boo dangay àndax nit tey nga yor lu loolu la nga xamante ne intérêt am la du la wax dëgg te dalay raay bu même bu la gis bu déggee la nga xam nekkul naka su noonu sax du la ko eggee kon boo nga nga déglu ko toog fale jàkkaarloo yow di la xool te la te jegewul la jegewul li nga yor te mu lay wax dëgg wala mu la mu mu lay wan li nga xamante ne doxul waaw mais saaga yaa ngi wax euh, saaga yeeg yooyu mais yéen euh, yeeyu askan wi euh, dañ leen di faral di tuumaal ne yéenay faral di saaga waa bennoo dañ leen di faral di tuumaal loolu yéen tim aussi yéen a ngi tuumaal waa bennoo saaga yooyu. waaw parce que xam nga politique euh, si politique lañ ne te ku nekk da ngay défendre sa parti mais mun nañoo défendre nte parti te kenn du saaga sa morom li ci ëpp fee lay jóge parce que tont yooyu askan wi tont la ñuy def. waaw dañuy daal si tontu da ngeen tontu. tontu tontu dañuy tontu parce que yow mënoo toog ñuy wax dara sa leader di xas sa leader di ko wax n'importe quoi te yow doo tontu mais tamit nañ xoolaat yëf yi fu muy jóge dañ xoolaat yëf yi fi muy jógee ba pare population bi soxlawu soxlawuñu loolu hmm. soxlawuñu loolu dëkk bi dafa metti la nga xamante ne moom mooy suqali réew mi la nga xamante ne mooy génn problème askan wi si seen seen jafe-jafe la nga xam ne loolu la ñu soxla wax yooyu lañ soxla mais pas ay xas leader bi kii moo def lii kii moo def lii yooyu dañ ko dañ ko war a dépasé si politique bi. d'accord mais sànq yaa ngi wax réew mi dafa métti réew mi dafa métti ci ban cas de la réew mi méttee dañoo askan bi seen àq ak seen yelleef dañu ko salfaañee wala dund gi moo cher moo jafe wala. lépp ak ak yelleef koy salfaañee. dund bi métti na ku ko wax ku ko waxul yëpp métti na. waaw ci dëkk bi. ci dëkk bi. d'accord léegi yéen lépp a euh, yokk. léegi yéen ngi bëgg amal euh, rassemblement la 14 mars. Mm. yéen waa coalition Yewwi Askan Wi. Mm. mais euh, nee ngeen ñu tere leen ko ñu accepter autoriser ak ñàkk autoriser par force di ngeen ko def mais laaj bu njëkk bi mooy lu ngeen si jublu ci rassemblement boobu. rassemblement boobu liñ si jublu jàmm rek la asalaam démonstration politique la. ñun parce que yeewu askan wi ci côté si euh, côté askan wi ah. mooy euh, défendre intérêt askan wi mhm. wax jafe-jafe yi askan wi di dund mhm. loolu moom moo indi rassemblement boobu pour dénoncer l'injustice bi ñi ñuy ah. jàpp loolu yëpp moom moo waral rassemblement bi ñu war a def pour dénoncer ko ci. parce que si lo rassemblement boobu ñëwuñu pour taj ñëwuñu pour xeex ñëwuñu mais dañoo oote pour askan wi génn pour ñu euh, échanger wante pour ñu wax ñu dégg ñu xam fu situation dëkk bi toll. fu mu toll ñu waxtaanee ko moom moo nekk dund bi cher na. tëj bi bëri na injustice bi bëri na. loolu yore na. transparence am na. <laughs> transparence ah réer nga sax xam nga ni transparence amul mais loolu yëpp dañ ko war a wax mais pour nga wax ko dañoo ne dañuy rassembler wu. Mm-hmm. dañuy rassemblement la ñu oote dañuy rassembler wu waxtaan ak suñu militant waxtaan ak suñuy njoñ waxtaan ak askan wi. Mm-hmm. wax leen tolluwaay dëkk bi. tolluwaay dëkk bi fu mu fu mu toll. lu ñu war a def parce que si élection la ñu jëm si élection présidentielle la ñu jëm si ñu sensibiliser leen bu baax a baax a baax looloo waral rassemblement bi. Mhm. mais du rassemblement xeex wala dara. d'accord mais euh, rassemblement pacifique la mais euh, bu ñu leen ko teree lu ngeen def. non duñ ko tere parce que rasa waruñu ko mën a tere parce que kuy oote jàmm. pour rassembler population pour waxtaan ak ñoom loolu waruñu koo tere man si sama gis-gis loolu waruñu koo tere. kenn kenn kenn du ko tere. no waruñu koo tere mais dangeen ngeen fee yàgg organiser ñu tere ko aussi. <laughs> waaw bee passé bii passé dañoo ne ay chantier moo nekk foofu mais jox nañ ne ñaari itinéraire yoo xamante ne. Ah. amul chantier. non dina am dinañ ko autoriser. incha allah léegi nañ jël cas de figure bu ñu ko autoriser wala lan mooy lan ngeen def. no duñ def dara. da ngeen accepté. duñ def dara dinañ wax askan wi loolu rek laa gis. wala da ngeen am stratégie yoo xam ne bëgg leen koo dévoiler. non non. Hmm? defuñ dara. mais rassemblement boobu euh, ginnaaw rassemblement ba da ngeen a bëgg a organiser yeneen euh, yeneen marche ci 46 départements yi euh, loolu tamit lan moo ko waral. waaw parce que li li ko waral moom moo ne 46 département département yooyu si yoon si yoon sax loolu loolu moom moo yoon parce que fépp yeewu askan wi mi ngi fa bu boobaa ku mënul woon a ñëw si bii di nga di toog xaar sa département mu organiser nga wax fa la la métti ngeen échange nga nga euh, ñu échangeante ak population départ ak waa départementaux yi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mais dama dégg Sonko nee na euh, ndigalem jox xale yi mooy bu leen bu leen bu leen préfet yi euh, tere lànk leen ndax d'accord nga ci loolu. loolu ci. Ousmane Sonko keroog ci seen euh, conférence des leaders. Mhm. dafa wax ne marche bi nga xam ne tey ñoom yeewee dañ koy amal ci quarante six départements yi nekk ci mhm. Sénégal. Mhm. ñoom dafa ne li mu jox xale yi comme ndigal. comme ni ko xale yi di waxee. mooy bu leen préfet yi teree. ci ku ne département ba nga nekk. lànk leen. brave leen interdiction boobu marche par force. mais marche dafa war a am parce que ay nit bu ñu amee lu leen métti dañoo war a marche te foog naa ne préfet yi duñ ko interdire marché yi dina am dinañ ko def si jàmm ku si nekk ñibbi. waaw mais mais dañuy gis ne parfois ngeen organiser marche ñu tere leen ko nag. non non yu yu yi duñ ko tere préfet yi duñ ko tere parce que si population bi loolu lañ am pour dénoncer lu ñu leen métti kon boog hmm. préfet yi ah, dinañ dinañ respecter population départementaux yi. Hmm. affaire yi dina dina am gisuma si benn kii. d' léegi ñu wax ci euh, li nga xam ne tey mooy benn plateforme boo xam ne am na ñu ko taxawal ci acteur politique yi ak société civile bi ngir xeex lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat Macky Sall euh, ñi nga xam ne ñooy waa PDS ñoom nee nañu bokkuñu si euh, ndax Aminata Touré moo tax euh, ban gis-gis nga si am en tant que député ak nga bokk ak waa Wallu Sénégal aussi ca assemblée nationale te nga nekk ci Yewwi waaw ñoom ñoom daam si entité bu ñu bokk ñoom loolu mooy seen gis-gis waaw man nangul leen seen gis-gis mm-hmm. waaw est-ce que jàpp nga ne Sa est-ce que jàpp nga ne loolu ñu wax euh, lu yanu maanaa la. ah ci ñoom ñoom. yow ban gis-gis nga si am. ah, ah. gis-gis nga si am ah. Euh, Fatou ah si ñàkk non mënoo si ñàkk am gis-gis ndax wallu non wàllu Sénégal yéen yéen a àndoon ak waa wàllu ba ngeen dem assemblée national wàllu Sénégal taxaw ne bokkul ci plateforme boobu est-ce que yow jàpp nga ne plateforme la boo xam ne euh, bu jaar yoon la. plateforme boobu. pour xeex troisième candidature Macky Sall. pour xeex troisième euh, candidature Macky Sall. loolu moom ñëpp a koy xeex. mag mhm. Macky warul ne bokk warul bokk ñëpp a koy xeex. Mhm. mais euh, pour ñoom ñu jël ne Mimi Touré moom mooy tax bu Mimi Touré bokkee ñoom. duñ bokk duñ ci bokk ah loolu ñoom la concerne ñoom ñoo xam yan lan lañ seekax mi mi ñoom ñoo xam. Mhm. lan lan moo tax parce que man bokk ma seen entité. ñoo xam seen i décision entité. d' accord léegi ñu wax ci euh, li nga xam ne tey mooy euh, il faut ñu dellu si ginnaaw tuuti ci euh, njëg yi nga xam ne tey dafa dafa yokk ci ci Sénégal mm-hmm. sànq yaa ngi koy wax bëri na njëg yoo xam ne dafa yokk ba fan yi sax président nee na nañ ko si defal benn benn évaluation xaymaal ko prix yi nga xam ne dañ ko dañ ko homologué woon mm-hmm. njëg yu seeraayu bi ndax jàpp nga ne nguur gi daf daf si amul solution. Ah, loolu njëkkoon nañ ko fi wax. antuwul amul benn suivi kon bokk man si li ma jàpp ñoom suñu buggee wàññi ba bëgg ko dëgg pour jàppale population bi taxi yi la ñuy wàññi ah bu ñu wàññee taxi ñiy jënd commerçant yi jënd bu boobaa njëg bi ñu leen jox dinañ ko respecté ah. mais taxi yi mënul cher ba pare ñu ne jaaykat ba wala kenkayri euh, bay jaay ciment wala kiy tabax këram mhm. ne na luyee cinquante mille mhm. te te la mu jëndee ciment ba cher taxi yi bi ñu ko wàññee ñu xool taxi yi ni ñu koy wàññee boobaa mhm. population bi dinañ ci commerçant yi dinañ ci mën a euh, dinañ mën a jàpp respecter le président wax. mais mais wàññi njëkk mais est-ce que yow si sa niveau. Euh, est-ce que yow si sa niveau gis nga ne. Euh, ndax président ñi ak gouvernement parfois dañuy tuumaal euh, ne commerçant yi la jàpp nga ne ci niveau bi ci kan la. mais ci gouvernement bi la parce que commerçant bi mu mënul mu mënul jënd ñu yokk mu jënd ba pare mu euh, président bi gouvernement bi xëy suba ne day wàññi xëy suba ne day wàññi. Mhm. fekk yokkoon na démb commerçant ba jënd mu xëy suba ne ko jaayal di loolu mënul ne. léegi déggoo du am seen biir. léegi pour pour uh-huh. déggoo am seen biir gouvernement bi na xool si taxi ba pare mu wàññi taxi bu wàññee taxi ba pare bu boobaa kat dina mën a imposer commerçant bi na ko lii nga jaay parce que lii la la dikkee. Uh-huh. mais yaa ngi dem marché. maa ngi dem marché kay. lan moo yokk ci marché bi lan moo fa yokk ak lan moo fa yokkul. marché bi lépp a yokk. lépp a yokk lépp yokk fépp a métti. amul benn boo mën a wax sax. amul benn boo mën a wax ni wàññeeku na amul. dafa gën a yéeg parce que tey boo jëlee diwlin bi boo euh, cinq litres yi doon jar mille cinq 4500 tey jii boo demee mille 8800. xam nga te na loolu métti na diwlin bi rek laa la wax waxuma la ceeb bi léegi ak ah, loolu askan wi naka la ñuy dundee tranquillement ba nga xam ne duñu am benn souci benn stress du am benn problème du am kenn du énervé mm-hmm. parce que tey jii la nga war a lekk la la nga amoon cent franc pour jënd ko yow mm-hmm. lekk sa biir fees mënatoo koo am ci cent franc loolu dafa métti loolu dalay enerve boo xëyee rek te ndékki wa nga bëgg a def benn repas day métti mais est-ce foofu fii ni ko waxee nag euh, Fatou est-ce que fii la fii la toll wàccal ci base bi gis nga yenn journalistes yi loolu da ngeen ko war a def yéen ñiy def euh, ki ngeen wàcc si base bi si banlieue ci fon fond fond surtout banlier bi ñun ñu dëkk def euh, si ay banlieue ñun xam nañ bu baax li ñuy dund mm-hmm. parce que tey jii di nga gis koo xamante ne da daan débrouiller ci cent franc mais cent franc ba pour mu débrouiller si ba lekk sax problème na problème la ñu ne suukar si fi ne nii kenn mënu koo gis aussi suukar cher bu nag kenn gisu ko parce que li doon jar trois cent cinquante. li doon jar trois cent cinquante boo demee tey ñu naan la kilo suukar sept cent xamante ne yokku na. Mm-hmm. am na koo xam ne trois cent cinquante boobu da koo woon tey ji mi ngi si sept cent est-ce que kooku dina ko jot. du ko jot mm-hmm. ba pare kenn gisu ko suukar dafa manqué. te ñu ngi jëm ci weeru koor. mais mais ñu bari tamit ñoo ngi wax ne paas yi euh, paas yi dafa yokk mais faju gi aussi ci Sénégal ñu bari nee nañu dañoo am difficulté euh, pour faju waaw paas yi dafa yokk paas yi yokk na parce que essence bi dafa yokk carburant bi bi dafa yokku mm-hmm. carburant bi yokku na paas bi day yokku mais carburant bi su wàññeeku woon paas yi dina wàññeeku ñu bañoo ñu yokk carburant bi nga gis paas bi du mun a yokk mais tey paas bi su yokku nga war a nga doon paas kat cent di lay yóbbu mm-hmm. cent cinquante aller boo boo wàccee cent cinquante retour sa kër muy mm-hmm. trois cent tey jii nga war a yor téeméer boo war a paas aller retour te sa lekk ñëwagul nañu xoolaat daal askan wi sonn nañ. mais président Macky Sall 2023 bi dafa waxoon anne sociale même bi ñuy teg gouvernement Amadou Ba bi. <laughs> waaw reetaan nga sa année mhm. sociale la wax de. gisaguñ ko gisaguñ ko ah gisaguñ ko de fu mu nekk nii daal prix yaa ngi yëg te foog naa sociale da nga war a wàññi pour nit ñi mën a. dund daal mën a dund dund bu normal. mais eh, lu jëm ci wàllum location bi euh, wàññi location loolu moom xanaa xanaa di nga ko rafetlu. waaw wàññi location bi wax ko nii rek day dafa taaral nii rek mais jëf ko. de depuis kañ lañ ko waxoon mais teewul wàññi bi mënul am parce que tey ciment bi mënul di yokk ngay wàññi location. Mm-hmm. na na taxi yi wàññeeku ciment bi mën a oyof nga gis moom loolu mu loolu mu wax noonu mu mën a am. parce que nit ki yow mënoo mënoo moom sa sa kër di ko tabax dem mhm. fekk ciment bi yokk nga nga nga war a def la nga xam nga nga def sa calcul boo xamante ne tabax nga sa kër ba pare nga nekk pour ma génn si naa def cent cinquante mille appartement mhm. ñu ñëw na la defal cent mille te yow yaa jënd sa ciment fekk ciment yokk na lépp yokk na mais bu ñu wàññee njëg yooyu rek bu ñu wàññee njëg yooyu rek bu boobaa Euh, lépp dina yomb da gis. léegi lan mooy solution bi kon fi ni nga ko waxee nii euh, que ne Sénégalais yi ñoo ngi si ay jafe-jafe euh, ñoo ngi si tumuranke jàpp nga ne yow fi ak deux mille vingt quatre situation boobu ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi mën nañu ko mën nañu see indi solution. suñ ko bëggee indi indi ko bu ñu xañee seen bopp lu bëri c'est luxe. comme lan comme lan. lépp si la nga xamante ne ñoom ñu ngi koy am ci ci ay ci ay luxe di ko di ko dund tranquillement te war a sóoraal ñu jël ko dooleel ko population bi wàññi njëg yi ñu xañ seen bopp parce que boo jiitee ne dangay dangay mën a xañ sa bopp loo xamante ne pour pour nit ñi jëriñoo ci parce que askan wi ñoom ñoo leen fi teg askan wi ñoom ñoom ñoo leen votel ba teg leen fi kon boog war nañoo def loo xamante ne ba askan wi duñ leen jéppi tey jii ñoom mënuñoo nekk di di ami seeni hectare eh, di di dëkk eh, si kër yu baax si ay si si ay eh, château yoo xamante ne macha allah ay milliards yi milliards ñuy ñu ciy dund di ko yor population bi di di nekk si jafe-jafe foog naa ni am na loo xam suñ ko xañoon seen bopp concentré wu songu si li ñu wax ni année sociale la ñoom ñëpp ñu songandoo ko gouvernement bi mm. songandoo année sociale bi ñoom ñëpp kon bokk affaire yi dina apaisé wu prix yi dina wàññeeku parce que taxi yi rek bi ñu ci duggee ba wàññi lu bëri wàññi taxi yi fay taxi mi rek bagage dina yomb lépp dina yomb. waaw ah, mais lu jëm ci wàllum yéen bi ngeen di voté budget euh, budget deux mille vingt trois euh, yéen bokkoon ngeen si ñu doon wax ne institution yenn yi du ngeen voté budget boobu lu si mel ni euh, ACCT ak conseil économique conseil économique social environnemental da ngeen yéen da ngeen jàpp ne yenn institution yooyu bu ñu ko fi jëlee woon tey xaalis boobu dina mën a dundal dina mën a gën a ñoŋal dund ko askan yi ba léegi position boobu ngeen ci amee. waaw loolu lañ ci am parce que ñun gis-gis bi ñu ci am moom moo nekk ni loolu yi yitteelul sénégalais yi xaalis boobu budget boobu ñu jël ko yokk ko ci dundu askan wi tey lu bëri dina apaiser lu bëri dina wàññeeku charité bi dina wàññeeku ci lu bëri. loolu wax ñun foofu lañ ko teg si ñun. waaw mais mais est-ce li ngeen wax aussi yéen a ngi koy sóoraale que bu ëllëgee bu ngeen toogoon ndax yéen ne ngeen budget euh, même primature sax budget sax euh, fële ngeen ko sànni. HCCT conseil économique social environnemental tey. Mm-hmm. est-ce que yéen tey xalifa bu demoon ba nekk président de la république. taxawaay bii ngeen am nii est-ce que bu boobaa moom ngeen am ci institution yooyu nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne ay institution budgétivore la. waaw waaw parce que loolu loolu dafa bokk si suñu combat la nga xamante ne inutile la. Mhm. wax dëgg yàlla. loolu nañ ko teg fële te jël li li ñor askan wi xalifa askan wi moo ko ñor tey jii bu jëloon réew mi tamit loolu mu waxantee askan wi dina ko def parce que xalifa euh, nitu kàddu la. Hmm. d' accord léegi dañ ko ci bàyyi. léegi euh, assemblée nationale euh, boobu euh, fan yële dégg nañ ngeen ŋàññi président bi si ngeen dëkk sax naturellement ngeen koy attaqué chaque jour assemblée nationale dafa war deful liggéeyam ndax da ngeen a jàpp ne assemblée nationale taxawaay bi mu war a am dëgg dëgg dëgg contrôler action gouvernement bi da nga jàpp ne def ko. waaw su ñun ñun su lu ñu gis parce boobu ba tey lu bëri mu ngi am ñu ngi bind ñu ngi déposé assemblée dafa war a liggéey dafa war a kon li nga wax sànq rek euh, action gouvernement bi loolu la war a def ñun waruñoo toog parce que boo gisee ren assemblée bi ci mandat bi commencement mandat bi assemblée bi lu mu liggéey mm-hmm. opposition bi liñ ci liggéey parce que yeena lu bëri ah lu doon nelaw waaw yeena lu bëri parce que plénière léegi sénégalais yi dañ koo seetaan ba mu jeex liggéey par force xëy par force dem di participer métti woon na mais rythme bi métti woon na métti woon na si ñoom métti na suñu mentam métti woon na si ñoom parce que am na ñoo xam ne nekkoon nañu ay député rythme boobu mosuñu koo dund bii lañ koy soog a dund kon boog ñun Yewwi Askan Wi am na la nga xamante ne liggéey nañ ko ci biir assemblée boo gisee ñuy wax naan euh, président parce que président assemblée li tax ñuy ñaxtu temps yëpp ñu ne parce que dégguñu ko waxuñu tontuwul ci réponse yi lu ci bëri mi ngi tege ñi eh, écrit ak oral yëpp def nañ ko Yewwi Askan Wi ñu ngi liggéey ñu ngi déposé mais moom dafa war a tontu dafa war a waxtaan ak ak euh, euh, waa Yewwi Askan du Yewwi Askan député yëpp ñu toog xool situation dëkk bi ñu xool na laxa lanax lanax lan moom moo liyu ci moo doxul ci ministère yooyu ñu convoqué la ñu toog waxtaan pour askan wi parce que tamit jiite ay nit te doo wax tamit amul benn sens da war a wax même même ñun bu ñu nekkee opposant sax mais ñoo bokk liggéey askan wi ñoo ñu fa teg kon bokk warul xool ñii opposant lañ ñii pouvoir lañ. mais euh, Fatou Gueye yow nga nekk euh, sixième vice présidente assemblée nationale mm-hmm. euh, ñu gis ne député yi dañ leen doon jox ay oto ak ay euh, indemnité ren ñu ne député yi euh, amuñu oto ndax net lañu situation boobu. <laughs> waaw ah loolu lii de mi ngi soog a am. foog naa mm-hmm. député bi ñuy jox indemnité parce que député. mais est-ce que de loolu moo leen gënal aussi. non nekkul lu ñu gën a parce que li liñ fi fekk moom moo député bu nekk am otoom loolu loolu lañ fi fekk ñoo ñu ngi doon toog di xaar suñu oto ñu doon toog di xaar oto après ñu ne indemnité ba tey parce que xamante ne. dañ ne indemnité ba boo ko jëlee nga dem xool nga dem jënd sa oto parce que am na ñoo xamante ne yor nañ seeni oto am na ñoo xam ne yoruñu oto mais suñu yoru oto lay gën a. mais parce que mën a eh, boo yorul oto indemnité yooyu si mën a jënd oto. waa ku si nekk di nga organiser wu si sa nga nga xool nooy def ba am sa oto. Mhm. waaw. waaw mais mais mais yéen même askan wi moom moo ñu ñor. waaw mais indemnité yi boo defee calcul bi presque yéen joxoon leen oto sax moo gën a moo gën a yomb. waaw ñoom loolu lañ foog. dañoo foogoon ni eh, lii lii moom mooy gën a yomb indem indemnité yi mooy gën a yomb loolu lañ foogoon mais. wala ñoom dañuy rul kaas pour jënd nombre de oto yi ñu bëgg a jënd. ñan. Euh, gouvernement état bi. dañ doon. dañu yorul xaalis pour jënd ah, oto yooyu yëpp moo tax ñu leen koy jox ndànk-ndànk mais ñoom ñooy ñoom ñooy état loolu yëpp si forme xeexu politique la parce que man loolu laa gis parce que man pour ñoom ñu jën oto yi jox ñu ko du dara si ñoom hmm. man parce que fii lañ ko fekk dañ daan ñëw ay député de un mois deux mois seen oto yi génn. Mm-hmm. député mosul wax taxaw naan jox leen ma oto wala di kaas oto oto yi dañ daan taxaw mais ñun membre du ñun amaguñu oto suñu ba tey. mais membre bureau yi. gisaguñu suñu oto ba tey. ba tey gisaguñu suñu. mais yaay euh, mais mais est-ce que vice vice président yi wala vice présidente yi. Uh-huh. Euh, yow si yaay sixième vice présidente. Uh-huh. assemblée nationale est-ce que premier vice président deuxième vice vice am nañu ah man de déggaguma kenn ku ne jot na oto. ci assemblée nationale bi yëpp. waa déggaguma ko. même groupe parlementaire yi. déedéet déggaguma membre bureau yi déggaguma kenn benn oto génn na wala jox nañ kii oto. Mhm. mais indemnité yéen a ngi siy jot. Eh, jotaguñ ko indemnité député transport député. non dama dégg ñu ne li ngeen war a jëndee oto fan yi liir naa ci presse bi oto oto membre bureau bi. waaw dafay am. ñun dañuy am auto membre. oto à oto membre bureau bi fii lañ ko fekk fii lañ ko ñi fi nekkoon dañoo ñëw ñu ne euh, Moustapha Niass moom moo ko may membre bureau yi fi nekkoon kon ñun dañoo war a am yeneen parce que yooyu foofu lay nekk pour membre bureau bi la dañu am seen auto mais oto député simple yi boobu mooy indemnité transport bi. Mhm. moom moo nekk euh, chaque mois bi lañ koy soog a jot. 700000 waaw moom mooy indemnité transport. kon yéen ñi nekk ci bureau bi ñaari oto ngeen war a am na normalement. bu fekkoon ni oto député simple bi ak oto ma euh, bureau bi du benn ña mu nekk ñaari di oto mais comme euh, indemnité transport la dañuy jot indemnité transport. député simple député simple bi. mais membre bureau bi. Ah. bureau bi dafa war am oto. Mm-hmm. joxuñu oto déedéet joxagul indemnité. non non boobu amagul indemnité dañoo na oto lañ ñuy oto yaa oto bureau bi dina dinañ am oto loolu rek la ñuy wax. mais mais euh, waxaguñ leen si dara lu leer. non non amaguñ ci dara lu leer ba tey. d'accord mais yéen euh, yeewi askan wi lan ngeen def tey sànq yaa ngi ne am ni ngeen changement bu bëri ci assemblée nationale mm-hmm. li ñu fa gis mooy yenn détournement yi yéen a ngi koy jéem a clamé ji pour ñu def ubbi ci enquête euh, parlementaire mm-hmm. beneen bi gis nañu aussi mossion de censure ndax yéen da ngeen ne gouvernement Amadou Ba bi amu leen woon ci moom yaakaar mm-hmm. euh, gis nañ leneen loo xam ne mooy ci vote budget bi ngeen lu ngeen voté yenn institution yi mais gis nañ li ngeen faral di bëgg ba léegi amagu leen ko waaw waaw waaw parce que ñu ngi koy am parce que ñun luñ la ñu waxante askan wi. ñu ngi koy jëfee ni duñu dugg si loo xamante ne loolu lëndëm la duñu dugg si loo xamante ne xamuñu ko maîtriser wuñ ko parce que budget boobu ba ñuy ñëw fekk na ñu tëgg ko ba pare. fekk na ñu ko ba pare xamuñu naka lañ ko tëggee. moom moo tax ñun ñu prudent. loolu moom moo indi euh, duñu voté. Mm-hmm. parce que xamuñu exact. Mm-hmm. naka lañ ko tëggee ak lu ci ne. voilà mais bu fekkee ni bii di ñëw bu ñuy tëgg. Mhm. dinañ ñu fi fekk. Mhm. bu boobaa ñu xam bu boobaa dinañ xam dinañ maîtriser dinañ mën a xam lan lan la. booba lan moo ci nekk lan la ëmb ak ah, lan la ëmb. boobaa ñu jël suñuy parce que dañoo waxantee askan wi ne leen lu leer lañuy bëgg lu leer lañuy def si dëgg la ñuy nekk loolu lañuy waxante askan wi. duñu àndax loo xamante ne di def loo xamante ne day lor askan wi parce que suba suba ñu ñooy dellu jàkkaarloo askan bi pour wax ak ñoom moo tax ñun suñu mandat bi ñu nekk ci di liggéey di euh, di indi jafe-jafe askan wi di ko indi di ko euh, wax si biir assemblée bi pour euh, pour gouvernement bi mun a xam lan la askan wi du dund tey jii man su may wax si sama département laay wax xam naa lu ma fay dund xam naa li population bi dund parce que fa laay yeewoo fa dox falaay laay yendu kon boog xam naa seeni jafe-jafe su ma ñëwee kat war naa ko mun a wax looloo tax ñoo ñu fal ma ma indi seen kàddu assemblée teewal leen fa di leen fa wax. Euh, jërëjëf euh, Fatou Gueye yow nga nekk euh, député responsable politique taxawu Sénégal ci département bu Pikine mm-hmm. léegi département Pikine boobu. Euh, foofu ngay euh, ngay politique Pikine mu nekk euh, département boo xam ne bu am solo la ci ci wàllum politique ndax Khalifa Sall ñëwagul na foofu. waaw xalifa Sall ñëw na fa ñëwati fa. ci tournée bi mujj yi. ci avant tournée yi parce que xalifa Khalifa day ñëw di waxtaan mi ak militant mi tey wax ak militant mi tey Khalifa. bul fàtte ni lu ma wax sànq si njëlbeen nii ay ñun ay socialiste lañ am na ay magum socialiste am na ay moromam génération am na ay jeunes socialiste ñu bëri ñu nekk day ñëw di nemmeeku ay militant ma wax lépp mhm. waaw d'accord mais yéen euh, xalifa bu njëkk dañ ko gisoon ne dafa euh, sedd mais depuis que mu nekk ci jege ay yeewi ay Ousmane Sonko gis nañ ne discours am bi léegi dafa euh, dafa radical lan nga jàpp ne moo waral wala yow amoo si gis-gis boobu. Oh, man de aw ma si xali même xalifa rek laa gis. même même xalifa. non non si yéen si yéen mais man même même xalifa laa gis. Ah, même même suy wax même suy wax même suy wax yéen tàngal bi ngeen di wax man gisuma tàngal boobu. non xalifa ni mu radicale nii wàcc si mbedd mi. non xalifa yàgg naa wàcc ci mbedd bi xalifa ci mbedd mi la ne xalifa yàgg na wàcc ci mbedd bi. ci mbedd bi la ne. mais yéen bennoo dañ leen di tuumaal ne yéen opposition bi rawatina yéen yeew yi nga xam ne yéen ay ñu radical ñi yéen ay nitu fitna ngeen. du ñu ay nitu fitna parce que foog naa ne yeew yi gisuma si kenn ku ci nekk nitu fitna parce que li jàll lépp fii fii la ñu fekk te dara. yéen lañ tooñ. ñun la ñuy tooñ mais bu ñu yeew yi yeewi yeewi dafa nekk si logique am di liggéey di wax di liggéey kon mm-hmm. boog bu ñu ñëwee di leen bëgg bëgg buntu xataal wala dara tey ji yow jël ko si yow rek tey ji bu ñu ñëwoon fii tey bëgg la ne kërtam dugal la ci benn rukk da ngay bañ da ngay bañ mm-hmm. da koy xoolee noonu rek da ngay bañ nekk si phase de bu baax sax mais mots yi ngeen mais loolu loolu loolu. loolu ci politique la loolu ci politique la bokk. loolu ci doo ñëw ci politique bëgg a nelaw. Mm-hmm. déedéet da ngay wax. mooy génnee yenn moo yoo xamante ni ci politique la bokk. loolu yëpp ci politique la bokk. léegi ñu jeexal euh, faat waxtu wi euh, dab nañu xalifa Sall ma ngi waajal élection présidentielle euh, deux mille deux mille vingt quatre est ce que jàpp nga ne am na arme yëpp pour dem bu ñu waxee am na arme yëpp mooy est ce que tey base bi réellement. ñi nga xam ne xawoon nañoo découragé seen yaakaar xaw a ñu xaw am benn njort bi ne xalifa est que dina bokk wala du bokk. Hmm. ak ndax financièrement xalifa taxaw na pour pour dem ci élection yi. waaw xalifa taxaw na pour dem ci élection yi te dinañ ci dem incha allah ñu ngi koy dox ñu ngi koy wax ñu ngi koy jëfee. yow ku ci nekk ak sa façon de faire. Mm-hmm. yow euh, yaa nekk Pikine di politique foofu mm-hmm. euh, lan nga fay def yow ah, pour en tant que ku bokk ci Yewwi wala ku bokk ci Taxawu Sénégal. en tant que ku bokk si si entité bi moo bokk. ba pare muy Taxawu Sénégal. Mm-hmm. maa ngi wax ak suñuy militants parce que département Pikine yaatu na bañ ko daggee bañ ko daggul woon 16 communes la woon ma nekkoon président bi ba ñu dagg ko ñu nekk 12 communes ñu ngi suñu base ba tey si 12 communes yëpp responsable euh, commune bu nekk ñu am suñu coordonnateur muy El Mamadou Ndiaye. coordonnateur départemental. départemental bu taxaw Sénégal El Mamadou Ndiaye la tudd euh, man may présidente départementale bu taxaw Sénégal ñuy liggéey liggéey bu am solo di dem di fekk ci nit ñi parce que ñun département Pikine dañoo nekk bokk ci bokk. bokkoon ci parti socialiste det bokkoon ci ay coordination si ay comité ay section kon bokk ñun foofu euh, amuñu fa problème boobu parce que képp koo xamante ne rek bëgg nga xalifa nekk xalifa ñun dem nañ seeti la wax ak yow ñu organise yàgg nag ci combat bi di ko organiser yéen ngi def activité politique activité ku si nekk à sa façon de faire nu ngeen koy defee yéen. non non koy defee que ñu ngi koy def rek da ci am résultat te fépp foo xamante ne nag Euh, yeewu askan bi mi ngi fa rek taxawu Sénégal mi ngi ci biir si département Pikine yëpp douze communes yëpp ñu ngee suñu coordonnateurs yi ñu ngee suñuy présidente ak suñuy jeunes suñuy lépp parce que dañoo organiser wu manière si si manière bi ñuy yaree ci biir parti ñu màggee ci bokkoon mouvement national fii ñu du Sénégal màggee ci ba day nañu day yëpp ci biir Pikine kon boo xam ne euh, nekk magu socialiste yi si biir département Pikine ñi nga xam ñoo dagg département Pikine muy paaka Kabirou Mbodj mu ngi dund yàlla na yàlla yokk ay fanam may ko gudd fan ñuy liggéey ak ñooñu ñëpp kon boo xamante ne taxawu Sénégal mi ngi liggéey liggéey bu am solo ci département pikin bi. d'accord jërëjëf Fatou Gueye euh, honorable député ñu lay sant la gërëm. merci beaucoup. maa ngi lay remercier bu baax di remercier ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñu doon déglu euh, ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier Sénégal jàmm am fii ak salaam ah, ñu organiser élection yi ci jàmm. Mmh. ak yàlla jël ndam li jox ko ki nga xamante ne. mooy sama leader Khalifa Babacar Sall. Mhm. Sénégal jëm kanam. jërëjëf euh, Fatou Gueye honorable député yow yaay sixième vice présidente assemblée nationale nga mhm. bokk ci euh, taxawu Sénégal. Mhm. di militer ci département bu euh, Pikine yow la ñu invité woon tey sunu émission pencum réew mi. ci rajo réew mi FM muy am samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16 ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf mbokk ñu leen di jox samedi bii di ñëw incha